d'abord dañuy manifester sunu contentement maanaam sunu mbégte mbégte ci lan nit bu nekkee ci lëndëm ba yàlla gën ko ci lëndëm indi ko ci leer képp kuy mbokkam képp kuy jege ñaalem képp kuy jullit képp ku am njaboot da war a sant yàlla ci loolu ndax mënoon naa bañ a demee noonu donc libeere nañ Karim Wade may affirmer fii ni toogaayam nag ca fa toog ca prison rëbës képp ku ko fa fekk ci jom nga ko fekk ci fulla nga ko fekk ci fayda nga ko fekk ci gëm yàlla ne ci mission la ne ci nga ko fekk donc dañ koy rafetlu rafetlu nañu lool jege Karim rafetlu nañu lool ànd ak moom ci toolu baayam bi rafet nañu lool ci fulla ak fayda ji nga xam ne moom la doon nag ca kër ndeyam ca Versailles parce que fa yaayam dëkk ku fa dem xam ne tubaab bu fin àll finti dëkku fa rafetlu nañu itam fi ba fi euh, baayam dëkk mu jokkul ma ngaaj ji waat ndax maam mooy troisième barak di wàllu kon dañuy sant yàlla di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm it nag sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke parce que nag murit moom ndigal rek lay wéyee taxaw na ci wax na ci fexe na ci def na ci lépp lu Karim Wade nekk sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke nekk na ci wetam pour jàppale kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di gërëm nag militants yi ak militantes yi sans exception di gërëm les femmes du parti ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax taxaw nañ taxawaayu yaay ak doom taxawuñu taxawaayu leader ak militant mais dañoo taxaw taxawaayu yaay ak doom di gërëm karimis yi di gërëmit les bon volontés yi nga xam ne ñu ngi làqu tappi dans l'ombre di ñaan guddi ak bëccëg pour Karim di génn alhamdulilah puisque moom retrouvé na la liberté dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ci wër topp yàlla na wér te yàlla may nu ndam ci li ñu sumb ndax xeex bi du lii rek de niñ koy wéyale mooy kuñ xam foo jëm doo fa yegg mais premier sun premier jalon mo doon na génn génn na suñ deuxième jalon moy nañ ko blanchir ba mu set wecc troisième jalon nak moy ni ñu ànd woon ak bàyyam ñaar fukki ak juróom-ñaar ba yóbbu ko palé ñun ñepp jigen ñi ñu fas yéene ak moom ba yóbbu ko palé en 2019. xeex bi jeexul ndax Karim wad ci bopam war won dem kasso ndax deful luñ ko yobbo kasso détourné wul jëlul koppar réew mi du délinquant financier du délinquant économique cour de justice de la CEDEAO rendu rendre verdict le 22 février 2013 Il Karim juridiction de privilège article 101 de la constitution je ko les premiers ministres ak anciens ministres la fonction ministre ak premier ministre ki lañ leen cour de justice du Sénégal Si leen di cour de justice la CEDEAO rendre verdict le gouvernement exécuté constitution suñu réew article 98 daf ko dafa wax ni bo signé traité wala convention régionale wala internationale dogal ba nga xamante ni tukkee na ci ci kuréel yooyu la mu ëpp doole dogal yi tukkee sa biir réew maanaam juridiction si réew mi mais gouvernement bi dafa lolu dafa tok ci ci ci arrêté boobule dal di def jaay doole jaay doole yóbbu ko CREI yi ken ko né xam nga tribunal d'exception la ndax amul appel amul liñ ñu tuddee le degré du double degré de juridiction maanaam bu bu la tëjee fii mënoo dem appel pour ñu nga laaj ñu atte at la loolu amul ci benn droit moo tax cour européenne des droits reconnaître ko euh, Nations Unies reconnaître ko d'ailleurs le groupe du travail des Nations Unies nee na Karim Wade ah euh, dañ dañ ko tëj de façon arbitraire maanaam tëj boo xam te ni dëppul ak charte yoon loolu moo tax groupe de travail bi condamné état du Sénégal bi ma ko condamné mu ne nañ ko bàyyi. ba pare nañ ko indemniser maanaam nañ ko jox ndàmpaay waaye voilà d'ailleurs loolu moo tax sax Karim may Wade daal di jël dogalu groupe de travail boobu la nga xam ne commission des Nations Unies des droits de l'homme bu Nations Unies moo ko moo ko saytu càmbar ko ni donc Karim dañ ko war a bàyyi bi nga xamante ni gouvernement bi bañ na ko bàyyi nag ci la leen porter plainte ci tribunal grande instance bu Paris bi nga xamante ni juge ba saytu na ko juge bi nee na plainte bi day recevable maanaam plainte bi moom awuna na yoon tegu na ci yoon donc dañ ko atte gouvernement bi xam nga yóbbante woon na fa sax ay avocat mais biñ ñu demee alors euh, euh, juge bi def leen naa di yéen amu leen fi place agent judiciaire de l'État donc laa fi mën a déglu wala moom laa fi mën a gis donc foofu wóor na ni gouvernement bi perd na fa place am li muy def nii yëpp nag naan euh, grâce yi yëpp dafay gàttandu gàcce nga xamante ni gouvernement bi daf ko naar abi ci tribunal grande instance de Paris il faut que nit ñi xam loolu donc gouvernement bi dafay dafay communiquer dafay def communication pour nax askan wi pour nax nit ñi yaakaar ni pour ñëpp xam ni moom moo ko bàyyi ba pare bëgg tuumal Karim Wade or loolu c'est faux dafay gàttandu dogal ga nga xamante ni groupe de euh, euh, tribunal de grande instance Paris war na ko parce que xam nañ dëppul ci yoon loolu mooy mbir mi. ñaari yef moy suñu mbir ñu tay fexé ba Karim wad ñu sétal ko wécc wécc wécc parce que deful lu tax ñu tilmal dara.

man ñoom laay ñaanal jamono jii nii ndaxte lii dama ko rafet lu ndaxte Macky Sall mii ngay gis ni tey boo demee mu dem ba am xolu génne Karim Wade naa fekk rek ñoo ko jaxasoo nag Ablaye Wade Karim mais Macky Sall amul benn problème man moom amu ma lenn lu may wax loo xam ne lu di ko ñaanal rek yàlla may ko jàmm quoi Karim Wade tamit la indi si moom xéwal ak wërsëg bu baax a baax ndaxte militants yi vraiment sonn lool lool lool lool lool nit ñi mënu ñu mënuñu woon xëy mënuñu woon ndekki ñu won añ mënu ñu won reer lu ñu nañ bayyi kër ñu bayyi kër ñu ko ñaan yalla nak yalla yàlla indi ko wara gudd fan mu yor xam reew ci jamm ak salam ya yaam rek Macky salam yi nga xamne moy president président bi yalla na ko may jamm man mom am lo xamne teew ne téew sama bir xol may gëre nak apart de jeudi ci bir weeru koor gi man Macky mi ndax man bo gisoon sama lam mënu won rëy ci Macky Sall lu mu teewon Karim wad ci bir kassa gi won tay bu ko téelu won Karim wad kon heure bi kenn waxtu sama diggante maak mom ndax man sama jëma lepp lu mu mel na gannaaw yalla Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ablay wad la te ablay wad Macky Sall mu yóbbu mom tay bu bu dem ba téye Karim Wade si biir kaso gi nii man mënu ma woon wax dara lu wax ju rafet xam boo demee ba amatoo foo wéer foog nga xam looy waxee man nag man man nag maa ngi koy ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaan war a gudd fan lu mu doon ñaanalee sama ndey ñi di ko ñaan sama baay di ko ñaan Ablaye Wade war a gudd fan man maa ngi koy ñaanal Macky Sall yàlla may ko jàmm tuuma bi dañ ne ba yàgg tuuma bi dañ ne ba yàgg ndax Macky Sall mooy président yaa ma dégg moom la ko fi yàlla teg yaa ma dégg tëj nañ ko ah gis ñu si moom dara yàlla def na jàmm sam tuuma bi dañ na man daal lu ma ko gisee daal mën aw amul graisse setal nañ ko bu set wicc man daal loolu a gis man yaawu jàll ndax tey su fekkoon ne setaluñu ko woon kon du yéen muy génn 100 mètres mais bisu weeru koor gi nga xam ne tey moo nekk le 24 ay waay le 24 ji man vraiment moom man lii moom suukaru koor la si man quoi man daal Macky Sall daal jox la ma koor man